RFM matin 7 heures 44 euh, minutes sunu gan ci téléphone bi euh, Saliou Keita salaamaaleykum. Euh, yow yaay euh, directeur général bu CICES ngeen di amal euh, Ramadan Expo Dakar maanaam foire du Ramadan door na sax ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeruk mars gi ñu weesu fas yéene dem ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeruk avril gi ñu nekk nii mu doon ñeenteelu édition bi. Euh, foiru Ramadan boobee euh, est-ce que bu ñu xoolee fo FIDAK beeg yeneen ya cay xew euh, une foire de plus la wala. waaw d'abord maa ngi jégalu ci retard bi parce que tout simplement fi ma jógee moo sori maa ngi jógee ba Mbaaw donc. taw <laughs> ah, na nga teel a jóg de sëñ bi ñëw à l'heure mhm. waaw oui oui ça c'est vrai mais di wax ni rek ñu ngi sant bu baax ci émission bi effectivement. Euh, li nga wax mooy euh, la foire du ramadan d'abord di wax lan moo ko waral mhm. euh, CICES centre international du commerce extérieur du Sénégal dafa nekk institution d'appui au commerce mu nekk si li ñuy wax événementiel économique te ku wax événementiel économique tey jamonoy ramadan événement bu am solo la ñu war a mën a toog xool lal mooy bëgg-bëgg askan bi ñu taxaw ci. xam nga ni euh, weeru koor c'est un mois de forte consommation. mois de forte consommation euh, sunu jigéen ñi dañuy fu na la ñuy dem di wuti lu ñuy yóbbu ci kër gi lu mel ni yàpp ndawal daw dem seeraas dinañu daw également euh, dem. marché au poisson di wuti jën euh, dinañu dem également feneen di wuti ay bool maanaam suñu jigéen ñi fu ne la ñuy def te CICES en tant que parc d'exposition ñu jàpp ni war nañu centraliser lépp ci benn béréb hmm. pour yombalal leen lu mel noonu moo tax ñu waxtaan ak suñu acteur yi économiques yi ñu ñëw organiser lu mel noonu waaye ren ji le cachet mooy mhm. dañu bëgg mu am benn cachet religieux et culturel dem nañu seeti euh, sëñ Keita oui daf mel ni yaa ngi ci escalier yi bàyyil ñu may la tuuti nga egsi moo gën aca 7 heures 47 minutes euh, yaa ngi woon ci li solos euh, foire du ramadan bi ak la nga xamante ni yaa ngi ko doon juñu sànq euh, ni jamono ji yi tey dañoo bëri ci wàllum li nga xamante ne mooy li ñuy jëfandikoo ci kër yi absolument donc di wax ni d'abord centre international du commerce extérieur du Sénégal mhm. bi nga xam ne ni institution d'appui au commerce ñu nekk dans l'événementiel économique ku wax événementiel di nga wax lu mel ni weeru koor ñu nekk ci réew boo xam ne ni Sénégal quatre-vingt-dix-sept pour cent musulmans musulmans yooyu bu ñu wooree ils vont exprimer des besoins de consommation te weeru ko dafa nekk un mois de forte consommation sunu jigéen yu baax yi sunu yaay yi fu ne la ñuy dem. mais est-ce que forte consommation boobu demeeku nañ ni euh, njëg yi dañoo yokk ci marché bi. est que foire bi foire ci wàllu boppam. Euh, foire bi ci boppam comme foofu da am njaay daf fay am exposition lu jëm ci wàllu légumes yeeg yenn yi. Uh-huh. est-ce que am na une plus-value bi nga xamante ne foire bi dana ko indil ménage par exemple prix yi gën a suufee. ci ci foire bi. no ku nekk ak sa mission la. Uh-huh. mission wu CICES c'est d'organiser des salons et des foires moom moo tax ma ne la yooyu ce sont des rendez-vous économiques commerciaux yi nga xam ne ni tey dinañu apporter benn plus-value valeur ajoutée par rapport à l'économie. DG lan moo may fondé man ma nekk euh, par exemple benn ménage ah moo may fonde ma jógee fu ma nekk nii par exemple Médina dem ba ci foire. war fa jënd. xamul lu tax ah oui. tey jii yow sa soxna nekk Médina bu weeru koor jotee dina daw dem Seras di wuti yàpp dina dem marché au poisson di wuti jën dina dem feneen di wuti leneen waaye ñu jàpp ni coono yooyu yëpp ñun CICES tey nekk parc d'exposition et de congrès wàllu exposition nañu centraliser lépp foofu kon sa soxna benn déplacement lay def jënd lu muy jënd dem këram te loolu jàpp nañ ni c'est une façon d'aider. mais marché yi mën nañ def li nu mel noonu. ah non di ma la wax dama ne ñun suñu mission dañuy fexe ba exposition bi vitrine la ñu centraliser lépp loolu koy leer na. marché yi mun na am loolu mun nga am yaab mun nga am jën mun nga am yooyu. li ma wax dafa leer. dama ni hmm. Hmm. déplacement yu bari yi fu ne la ñuy dugg di wuti légume fa dem fële di wuti lële loolu nañ centraliser lépp loolu. idée bu rafet la. prix yi nag comme l'a dit Georges tout à euh, est-ce que euh, par exemple. CICES euh, mhm. du CICES mooy définir les prix CICES liggéeyam mooy organiser. l'événement mais pour que l'événement mu am doole boobu il faut que peut-être ñi ñi ñiy dem foofu aussi peut-être ñu bëri débat bi c'est pas ça débat bi du loolu débat bi mooy ñun CICES est-ce que suñu mission ñu ngi koy doxal te li ñu def nii tey am na solo moo tax ba ñu waxtaanee ak acteurs yi économique yi ñoom ñëpp dañ ko rafetlu. mais santarguñu yëf yi ah, ba léegi nii euh, on est tey jii ñaata la euh, mais gu ñu loolu ci. en tout cas <laughs> ñu ciy wax. ah oui oui non parce que ñi fa ñëw yow ñëwuloo fa mais hier madame le ministre. bi nga xam ne ni madame le ministre du commerce. sunu xarit sunu sœur Assome Diatta ba mu yegsee def visite officielle wax dëgg yàlla. gis na si satisfaction. publicité yi moo manqué wala ah lan la yéen a ngi siy jàppale yéen seen organe mi ngi siy jàppale donc je pense que li ñu war a def ñun def nañ ko waaye li am solo mooy CICES parc d' exposition et de congrès moo tax ma ne la ñun feuille de route bi ñu am ñun par rapport ak la question de Georges suñu feuille de route bu ñu defee état de lieux pour mesurer véritablement le poids de la mission. que son excellence le président de la république dénk ñu CICES bi nga xam ne tey moom la ñu hérité dañu travailler sur une nouvelle feuille de route wuti ay partenaires yu bees initier ay activités yu bees pour booster le taux d'occupation et de fréquentation parce que ñu bari ñu ngi wooye foire alors que foire c'est une activité mm-hmm. donc ma jàpp ni tey mission CICES véritablement wax naa ni parc d'exposition et de congrès moo tax ci foire du Ramadan ramadan c'est le mois de pénitence ñu gën a jaamuwaat yàlla on a dit que dinañ ci dugal benn volet religieux et culturel seeti nañu këru diine yi yi nga xam ne tey jox nañu ay conseils apprécier nañu initiative bi ñi ngi ñëw dugal ci seen loxo parce que tout simplement li ma wax mooy CICES parc d'exposition et de congrès volet congrès boobu il faut que ñu doxal ko. loolu tax tey mais mais est-ce que volet religieux boobu nga xamante ne wax nga ko parce que. si mhm. si si si je ne m'abuse euh, je sais pas ab semaine wala semaine bu nekk am na. Euh, këri këri. Euh, diine këri diine gi nga xamante ne moom ngeen ko jégleen e, est-ce que loolu tax na ba nit ñi fekk si leen ngeen remarqué peut-être am na. engouement ah engouement ah oui très franchement. parce que bii mujjee mu nekk. Euh, journée bi nga xam ne dañ ko dédié woon ak euh, la famille euh, Niassène sunu baay ju baax ji sëriñ Mouhamadou Mahi Cissé personnellement ñëw def déplacement bi avec une forte délégation il y vraiment la masse mais balaa ñooñu aussi laayeen ni seeti nañu le marabu sëñ sëriñ Seydina Issa Laye mu en mu délégué ay rakkam ñu ñëw di leen saluer au passage donc aussi di wax ni loolu c'était vraiment euh, une première incha allah dina yeneen yi di ñëw week-end bu ne Ndiassane dinañ ñëw Omar yeneen dinañ ñëw Tiwaawan dinañu ñëw xadaratul juma dinañ ko yooyu yëpp si mission CICES la bokk. taux d'occupation bi ñaata la heure bi. c'est-à-dire taux d'occupation stand yi. actuellement boo xoolee stand yi tey. Euh, on est à plus de 75 pour cent d'occupation et c'est normal. nombre de visiteurs. Oh non on n'a pas les statistiques à nos moments mais li am solo mooy tout début est difficile démarrer nañ ko mais li ñu gis ça nous rassure parce que nous avons l'expertise d'organiser de telles manifestations xam nañ ni dinañ ci tirer ay enseignements déwén dina gën a. am doole. qu'est-ce qui fait que depuis quelques années si c'est ça n'attire plus euh, comme autant temps. aujourd'hui ça commence à attirer. kan moo waraloon loolu. c'est pourquoi je te dis ba ñu defee l'état des lieux parce que Salihou Keita est arrivé à la tête du CICES jamonoy Covid événementiel lañ nekk et les rassemblements dañ koy tere mais dañu profiter ci moment boobu pour defee l'état des lieux. mesurer le poids de la mission qu'on nous a confiée ñu travailler sur une nouvelle feuille de route looloo tax ma ne la tey ñun suñu mission c'est de promouvoir les échanges commerciaux ñu fexe ba askan bi lépp luy seen préoccupation ñu répondre à leur attente euh, légitime te loolu wax dëgg yàlla du maa koy wax. est-ce que foire bi fu mu nekk noonu rukkewul tuuti. en termes de déplacement 1974 le CICES était très loin de la ville aujourd'hui le CICES est dans la ville. mais justement loolu tax la mission du CICES. à ce propos njiitu réew mi am na ay jamono euh, mu ngi doon wax ne dañuy tabaxaat beneen bërëbu. jëm centre euh, non ça c'est des prédateurs fonciers qui le disent. parce que tout ça non foofa. ah dama ne njiitu réew mi. Mhm. bëggoon na toxal CICES. fan fan la. projet njiitu réew mi euh, centre euh, international de commerce bi mu amoon ca Diamniadio président de la république Macky Sall rajo lay wax. mosul mhm. wax ni CICES dañ koy toxal. parce que sa centre euh, centre international mel ni CICES waxoon na dañ danañ ko def. Diamniadio loolu amul musul am. ah bon c'était non pour je vous dis je le DG du CICES président de la république bi nga xam ne toog naa ak wax ak moom li mu ma wax mooy le ci restera là où il est bu buñ ko dooleelul duñ ko jàpp tey le président de la république nous a accompagné ba nga xam ne ni tey am nañu benn fondation avec la fondation Getty benn subvention pour ñu travailler sur euh, euh, euh, def lu ñuy wax étude pour aller vers la réhabilitation du CICES. Hmm. loolu c'est forcé parce que tey jii boo nekkee ci événementiel tu as besoin d'infrastructures moderne tey CICES est frappé par la vétusté de ses infrastructures te d'ici quelques jours dinañ leen présenter la nouvelle maquette futuriste du CICES c'est-à-dire que tey on veut faire du CICES benn hub économico-culturel. entre-temps fan lañ koy euh, délocaliser. non on ne délocalise pas. bu fekkee ni yéen ay ci ay travaux de réhabilitation. ah oui, oui. non ça c'est nee naa la cest il faut être expert en la matière pour nga comprendre tey CICES parc d'exposition et de congrès au départ. on était 107 hectares tey on est à hectares mais y' a pas un parc d' exposition si monde bi qui fait moins de 100 hectares. dañ ko dagg. dañ ko dagg. mais tey jii le président de la république Macky Sall a compris ba nga xam ne tey orientation yi mooy parce que vous savez. boo nekkee ci événementiel le parking fait partie de l'offre waxtu wi jeex na <laughs> jërëjëf Saliou <laughs> Keita <laughs> directeur euh, général bu sises euh, ngeen di euh, organiser depuis le 29 mars ab foire foire du Ramadan ngeen du tuddee ko Ramadan Expo Dakar le 24 avril lay jeex jërëjëf Mouhamed Alimba mi mu àndaloon ci waxtaan wi di ziar soxna Naata Mbaye ak ñamu àndal ca TFM ñu yendook jàmm RFM matin merci beaucoup Georges Déthié Diop Mohamed mu Ba ak équipe bu RFM matin yëpp di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm il est 8 daanaka ñu dellusi ci pàcc bu mujj bu info matin ñu dooree ko xibaar yi ànd ci ak Cheikh Tidiane